Cheikh El Hadj Malick radiallahu wax na ni Jibril mujj ñëwam ci jamono yi nu nekk ne dana am waaye nee na li muy wut si mooy yëkkati si fukki jikko ba dootoo ko gis fenn dana yëkkati barke lu nit def du am barke alal ju mën nga ko am du am barke ne dana yëkkati cofeel kenn ku ne di rees sa moroom waaye kenn du sopp sa morom ne dana yëkkati màndu ne boroom diine yeeg boroom xam-xam yi waxtu leen wu la neexee nga jënd leen ne kersa dootul am dañ koy yëkkati nee na bu ko defee gune ak jigéen dañuy dëgër bët ne muñ dañuy yëkkati muñ nee na ku ñàkk saalit ne ñu yëkkëti dëddu xam ni su yàlla dogalul nga di borom dignité daa xemmem loxo ku ne nee na dina tabe ne koy joxati danga koy jënd waaye jokk bokk taxul nen daan dem ba yëkkati alxuraan ñu di ko jàng rekk te duñ ko jëfandikoo dana daan dem ba yëkkati lislaam nit ñiy jullit te duñu jullit Mm-hmm.